mbokk yi salaamaaleykum yéen ñi safoo seetaan Sénégo Sénégo TV maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax tey nag suñu entretien exclusif ñoo ngi koy am ak ki nga xam ne moo nekk di waay Waydi di kenn coo xam ne hip hop Sénégal xam nañ ko képp ku yëngu ci wàllum hip hop musique cinéma ah, lépp luy spectacle tey nag ki ñu am ak rendez-vous mooy Mr Wydee Wydee xam nañ ko bu baax di organisateur walla fondateur bi nga xam ne moom moom seen Hip Hop Awards di ku ñu gëj a gis temps yi nag ñu dajeek moom fii ci New York Wydee maa ngi lay nuyu. wala nu mu demee. <laughs> ziar naa la bu wér Wydee. delloo ziar bu wér delloo bu wér. Hmm. di nuyu téléspectateur Sénégal yëpp. ok Senego TV senego.com. Mm -hmm. euh, di nuyu tous ceux qui nous suivent à travers les États-Unis à travers le Sénégal et à travers euh, feneen fu ñu mënti doon di leen dalal fii ci voilà fii ci Manhattan Harlem New York City. Mm waxtaan ak yéen quoi. Mm-hmm. sunu question waaye di lan lay wut fii ci États-Unis euh, depuis ñi may suivre xam na ni je la là depuis de depuis depuis moment. maa ngi fiy jaabante dama nekk di boucler un documentaire sur le hip-hop international donc euh, des interviews avec des artistes africains européens et américains donc documentaire boobu mi ngi tudd Back to the Source où je rassemble trois continents yoo xamante ne lépp ci hip-hop bi la et wala je pense que ce sera un dernier crochet avant ñu koy boucler parce que instant yi nii déjà ñu ngi studio commencé def sous-titrage bi donc euh, gars yi yàgg nañ ko xaar mais bientôt incha allah li ci des bëriwul. kon li la fi indi dafa concerné euh, musique internationale. le hip hop international. Mhm. ak quelques rencontre exclusives yoo xamante ne. Mhm. Euh, maa ngi nii New York lañ nekk tey demain war naa dem Miami après war naa dem Los Angeles. Mhm. rencontrer des artistes yoo xamante ne euh, dina dinaa bàyyi ba après affaire yi génn gars yi dinañu gis. ci rencontre yooyu temps yi ñu ngi gis sa Instagram yaa ngi posté ay ay international yoo xam ne dañ leen daan dégg mësuñu leen gis fenn tey. waaye di toog ak ñoom waaye di ban link am ak ñooñu. Euh, non en fait c'est pas euh, je sais pas nan laa la koy expliquer parce que fan yële c'est des artistes yi nga xamante ne xam nga fii mois de juin bi mooy mois bi nga xamante ne la ñuy woowee Music Appreciation Month mooy mois bi nga xamante ne ñoom dañ koo jagleel musique donc du premier au 30 juin euh, gars yi dañuy sargal musique bi donc euh, mairie bi fii mooy council euh, council bi city hall bi dañuy am benn programme bu tudd Music Appreciation Month boo xamante ne Euh, quatre fois dans le mois la ñuy jàpp ay jours yoo xam ne dañuy sargal ay pionniers ay grosses pointures yi nga xamante ne dañoo def ay jaloore yu rëy ci musique euh, ci hip hop bi donc euh, ñu sargal leen te te cérémonie yoo xam ne boo fa demee ñi ngi fay fekk ci nit du mat cent personnes. voilà donc man am na ci ñoo xamante ne je suis en contact avec eux ba ma leen yëgalee ni maa ngi New York fii donc ils moo demandé de passer yëpp xam na ce serait bien pour que ma ñëw assister loolu et c'est comme ça que j'ai eu le privilège de couvrir ci ñaar ci date yooyu noonu et noonu la rencontré des gars yi nga xamante ne tamit ñi ngi ci mairie bi et voilà donc euh, ils m'ont proposé tamit euh, xool nan lañ la mun a impliqué ci programme bi yaakaar naa ni 2023 incha allah il y a beaucoup de choses à faire. Mm-hmm. ndax yaa ngi wut ay partenaires ak euh, New York City Hall bi ndax. bon en fait xam nga loolu sa vient naturellement tu vois am na yoo xamante ne di nga ko ut mu dëgër mais am na yoo xam ne sa vient naturellement parce que ñi ngay dajal ak ñi ngay toog di waxtaanal ça dépend ci seen échange ci fu mu jëm ak ci lan la basé wu. et je pense que à partir de foofu yow tu pourras dire ndax c'est facile ou pas. mais le plus important mooy que mënoo ñëw ci dëkk bi ba pare te ce genre de contact yooyu noonu xam nga doo ci doo ci doo doo ci defar quoi doo ci doo ci am quoi te boo ko amee il faut sàmm ko sàmm ko nag dafa am yoon parce que il nga xam tamit gaa yi nan nga leen di approché lan moo tax nga leen di approché lan ngay indi ci table bi xam nga pour nga mun a ibbi conversation ak ñoom ndax ñu mun la respecté respecté ki nga doon respecté li la tax a jóg. Mm-hmm. voilà ah, ci biir visite bi ba tey yaa ngi posté sa Instagram yaa ngi photo woo ak ñoom euh, Coq Larocque yéen relation ngeen am. Oh. ci ñooñu nga xam ne ay légende lañ fii nañ fii ci américa Cochla Rock c' est kooku boo ko gars yi bu ñu ko xamul euh, mooy le premier rapport du hip hop le premier MC. voilà il a il a 68 ans tey et c' était bii nii c' était la troisième fois ma koy rencontre te rencontre bii nii sama jam la woon. Mhm. sama jam mooy concert bi nga xamante ne c' est l' des plus grands concerts hip hop. bi nga xamante ne rajo bi gën a rëy New York fii xaat naa ni Seven da koy amee chaque année te xam nga dans un stade où ça fait plus de quarante mille personnes forty thousand deep et voilà noonu laa ko rencontré foofu on a échangé on a pris une photo mu kontaan trop parce que euh, première fois bi xamuma woon deuxième fois bi fàttaliku ma woon mais troisième fois bi ba ma ko nee waaye di Sénégal West Africa rek mu tëb mu ne ma oh that's my brother how you mu laaj ma fu documentaire bi toll et tout a ne ko non ñi ngi ci li ci des bëriwul léegi mu génn donc ñi nga xam ne déjà bokk nañ ci jot naa leen interviewé am na ñu bari ñoo xamante ne ba tey nii su ma ñëwee ne leen xam nga ñegg si naa ci dëkk bi dañ may laaj fu affaire yi toll loolu lañ may njëkk laaj parce que loolu moo leen intéressé mm-hmm. donc euh, c' est un boulot boo xamante ne nag xam nga bu soobee yàlla xam nga. Mhm. ak ñaan yi nga xamante ne gars yi moom la ñaan ñaan ak yéene bi nga xam ne moom la ñuy am pour réaliser documentaire bi bu soobee yàlla. Mhm. Euh, d'ici très peu bu dina dina dina pare et puis ñu jagleel ko gars yi. Mhm. parce que c' un documentaire tam boo xamante ne non pas seulement bu génnee ce sera suivi d'un festival de trois jours qui va porter le même nom. back to the source donc artistes yi ci nekk yëpp muy Afrique muy États-Unis di Europe fii euh, di di Europe fële euh, danañ ci sélectionné ñoo xamante ne dañ leen di indi Sénégal pour ñu def trois jours ñi nga xam ne on aura des concerts mm. des de presse échange culturel tournée radio ak télé à la fin ñu offrir benn visite touristique bu ñu ñëwee dem xool Lac Rose mu mel chute d'eau Kédougou Gorée ak yooyu quoi loolu mooy li nga xamante ne solo le programme qui suit avec euh, l'implication de pas mal de partenaires yoo xam ne nii nii nii ñi ngi koy ñi ñi ñi ngi koy dox ñi ngi koy dox. Mhm. kon daal waaye di mu ngi ñëw yokk ba ci kanam. Euh, bëgg naa ñibbi nag mais ah. yaa ci kanam. pour ñu yeneen bon man sama dem ak ñëw man sama dem ak ñëw duma ko calculer. quand c'est nécessaire daal damay ñëw. Mhm. mun naa ñibbi tey semaine prochaine ma ñëwaat. Mhm. ça dépend rek. ci ñi ma war a rencontrer ak li may ak li may nekk di lijjanti. fan nga toll ak projet wu Galsen hip hop award. Euh, mais mi ngi avancé instant yi nii euh, déjà ci kanam nii dama war a dem studio parce que dañoo am benn saay fa boo xamante ne dañ ko jagleel artist euh, sénégalais yi nga xamante ne fii la ñu nekk. Mhm. voilà pour wan leen ne ñoom tamit xam nga affaire bi mi ngi xew Sénégal mais yéen tamit en tant que doomu Sénégal nekk fii di nekk ci hip hop bi. Mhm. war ngeen cee mën a am place parce que saay fa yi kenn moom ko ñëpp ko moom. Mhm. Voilà, mais à part ça, l'événement va célébrer la huitième édition cette année. Euh, Dao, Defonenko en direct à la télévision sur 2STV. Euh, donc, euh, c'était une cérémonie privée, cocktail dinatoire Lenko Defon, trop classe. Et voilà, donc euh, avec euh, la, la, participation de 13 pays africains, Rennes, il y a Ouganda ak Tanzanie sont ajoutés sur la liste. Donc, on aura 15 pays cette année au lieu de 13. voilà donc euh, sinon le programme moom changé wul euh, li ci changé rek mooy que bii yoon il n'y aura pas de présélection wala première phase euh, de de de vote deuxième phase non non non loolu yëpp duñ fi egg parce que dañoo gis ni loolu dafa bokk ci li nga xam ne daf ñu surchargé te daf ñu daf ñu yéexal et il trop de polémique quoi donc désormais le Galsen Hip Hop Awards avec Point Blank Pro nous informons tout le monde que euh, on va euh, sécuriser selon les critères les sept albums les sept EP les sept maxi euh, euh mixtape euh, les sept vidéos les sept lyricistes mm les sept révélations mm les sept artistes de l'année mm Euh, voilà catégorie bu ci nekk daal on retient les sept yi nga xam ne ñoom ñooy dem finale directement. Mm-hmm. et on va célébrer la cérémonie comme d'habitude en direct. daaw metti woon na parce que dafa tombé week-end bi nga xamante ne transporteurs yi dañoo grève woon donc finalement grand théâtre bi mu jëwul sotti. Mm-hmm. loolu moo tax mais moom ren moom dañuy delloowaat affaire bi Sorano. Mm-hmm. parce que à la demande de beaucoup de gens. que Sorano franchement xam nga ni mu daan amee foofu neex na leen trop. donc je pense que boo bàyyi mayee nit ñi nopp. nga xam ne événement bi li gënal nit ñi xam nga daal mooy lii te foofu nga tàmbalee mu neexoon trop yaakaar naa ni da nga leen di ko delloowaat ne leen xam nga comme nii ngeen ko bëggee kon nañ ko defee noonu. Mm-hmm. parce que après tout ñoom ñoo moom événement bi quoi c'est le public. Mm-hmm. kon ba tey jàpp nañ ne euh, Galsen Hip Hop Award ni mu demee woon daaw kon du ko demee ren lu bari non non non dañuy delluwaat ci li nga xamante ne mooy base bi mooy source bi mhm. yóbbu ko Sorano mhm. toujours xam nga tapis rouge bi gën a xonk mhm. euh, mettre en valeur li nga xamante ne mooy ce que fait cette jeunesse culturelle euh, avec pas mal de partenaires yi nga xam ne gëm nañ ñun li ñuy def sargal ñi nga xam ne c'est des artistes yi nga xam ne seen contribution ci hip hop bi kenn lam-laameetu ko ibbilaat buntu yi pour artistes yi nga xamante ne musuñu bokk ci saay fa yi mhm. parce que saay fa yi gars yi xam nañu chaque année dañuy changer mhm. et je pense aussi que wooy nga xam nga mettre en valeur xam nga suñu message bi nga xamante ne mooy temu ren mhm. le jeunesse espoir de demain parce que dëkk boo gis moom ak foo mënti dem ci àdduna ndaw yi ñooy ndaw ñooy ñooy ñooy ëllëgu ëllëgu réew quoi tu vois. léegi nag xam nga jeunesse sportive et culturelle. moom la ñuy màggal ren ci événement bi. Euh, te je pense que il y a beaucoup de choses à faire bu soobee yàlla xam nga ce sera une date assez exceptionnelle cette année incha allah. tey ci programme mu Galsen Hip Hop bu ngeen programmé Saayfa yi ñaata temps leen dikkee pour jël son yi enregistré ko si studio ñëwaat tourné vidéo bi ñaata temps leen ni jëlal loolu lépp. bu ma nekkee Sénégal loolu maximum ça me prend deux à trois semaines dépendant de la disponibilité du studio dépendant de la disponibilité des artistes et dépendant de la disponibilité de la réalisation surtout aussi de la disponibilité du monteur donc loolu yëpp boo ko boolee maximum deux à trois semaines je pense que c'est les cyphers peuvent être bouclés euh, mais pour tànn MC yi nga xamante ne ñoom ñoo koy def loolu moom ko at bi yëpp la ko il foog nga toog di natt xam nga talent yi boo leen gisee wala boo leen déggee wala boo leen repêché da ngay bàyyi xel ci li ñuy def par exemple boo dékki-jékkee dégg benn artiste boo xam ne mosoo ko dégg mais da ngay jëm a dugg ci net bi euh, xool kii mooy kan lan ak lan la def wala nga renseigné wu ci kii mooy kan fan la jóge fan la bàyyee ko kañ la commencé et tout bu dee talent am doy na la saay yi ñëpp ko moom ancien deuxième génération troisième génération ba quatrième génération saayfa yi ñëpp ko moom ku ci war a bokk di nga ci bokk on a eu des saayfa où on a eu ay ñun Dogiti c'est des pionniers ay ñoom Fada Freddy ñoom Dongo ñoom Xumaa ñoom ñëpp saayfa nañu on a eu tamit ay saayfa yoo xamante ne gis na ay boy yoo xam ne ren ren ren ren ji la ñu tëll tu vois saay saayfa moom mooy li nga xamante ne mooy mbapatu ipo hop mais fi nga xamante ne bu ñu boolee MC yi Euh, dañ leen di euh, dañ dañuy dañuy dañ leen di boole ñu nekk ci benn jongante boo xam ne ils von prouver artistique ils von prouver euh, ils vont artistiquement prouver à l'audience qui est meilleur et qui peut voilà loolu mooy sayfa mooy mbappatu hip hop donc loolu bokk na ci li nga xamante ne moo gën a indi <laughs> mooy gën a indi nit ñi sax ci ci ci ci cérémonie bi parce que c'est une c'est bi nga xamante ne y trop de fun en fait dafa am fun euh, dafa am happiness dafa am aisance c'est c'est c'est c'est mooy le seul côté de l'événement bi nga xamante ne artistes yi kenn du leen wax bu leen wax lii wala bu leen waxee ils n'ont pas les mains liées de dire ce qu'ils veulent mais tam bu xawee bu ñaawee yenn ñaaw yu ñaaw yu sa kii tamit euh, dañuy censurer voilà mais à la base pour dire que saay fa yi moom mooy loolu quoi ku amul talent daal bu fa ñëw. d'accord gis nañ ne comme artistes yi ñoo ngi respecté kon seen temps pour ñëw. enregistré mais bien sûr problème parce que dañu gis daaw euh, clip bi mu xawoon ñu jaaxal ak bés bi muy def euh, tey bi muy def clipam moom hmm. kase moo ne ci ginnaaw ak yow dafa ah, tardé woon non non non non boobu ak bés il est venu en retard mm-hmm. ok parce que jour boobu noonu je pense que moom moom kese kese kese moo fa nekkul woon y avait 34 MC ak bés kese moo fa nekkuloon comprendre naa gars yi certainement dañ ne waa li mu jote woon ak Matadi la et tout non non non ça n'a war à voir avec ça woo nañ ko dafa amoon joob moom orca la doon joobee xaw ma ndax mi ngi fay joob ba léegi mais dafa tàggu gars yi yéex koo bàyyi lu temps mu paree changé wu xam nga nekk ci yoon di ñëw dafa ñëw fekk ñu tourné ba muy ñëw déjà dix minutes après ba ñu paree la doog a si loolu moo tax sax mu fekk ñu fa mais naruñu fa woon fekk. Euh, bon on noonu rek la ñu mënoon def pour pour pour combler ko quoi boo seetloo man fi ci même endroit bi lañ ko tourné même yëre bi laa soloon man donc voilà loolu rek la mais sinon il est pare woon na pour ñëw. mais du am dara lu mu leen yàqal. non du yàq dara du yàqu dara c'est juste que da doon gën a nice bu fa ñoom ñëpp nekkee. mais ku fa nekkul mun nga tourner fi nga nekk après nga envoyé ko après ñu monter ko. Mhm. loolu rek la. temps yi nag gis nañ ne concurrence yi bari na ñoo ngi gis yeneen façon yoo xam ne ay awards la ñuy joxe au Sénégal. Mhm. est-ce que façon bi ñu koy defee yow apprécier nga ko. Euh, ah man de xam naa ni apprécier nañu Galsen Hip Hop Awards nu muy defee. waaw nu keneen di defee wax dëgg yàlla loolu mënuma ci wax. mais yow en tant que ko xam ne yow organisateur nga yàgg nga ci mbir mi. waaw façon bi ñu koy defee est-ce que c'est normal. bon c'est-à-dire xam nga koo xamante ne dafa ñëw di def li muy def xam nga am concept am ak yooyu noonu bu fekkee yow comprendre lan mooy motivation am ak lan mooy concept am tu peux pas dire grand chose quoi donc euh, Galsen Hip Hop Awards. yow daal Galsen Hip Hop nga xam ne bosom. normal na moom li muy defee. ah man de jàpp naa ne normal na ndax bu normalu loon du yàlla yàlla du ñu may ñu koy fekkee pendant huit ans. Mhm. ay années dañ daan gis nga ci daan ànd ak euh, partenaire ak télévision bi di DTV. waaw euh, ren nga ànd ko wala daaw nga ànd ko ak 2STV lan moo waraloon loolu. non non non du rien à voir ah Jupiter suma grand la euh, d' ailleurs ngi koy big up de passage. Mhm. c' est juste qu'il faut assez être assez honnête dañoo toll foo xamante ne audience bi dafa commencé di gën a yaatu. et que si on part xam nga vers on temps vers l' e il faut être assez honnête de dire que 2S. TV euh, seen audience moo gën a yaatu que euh, audience su DTV et loolu rek la ah sinon du leneen mais DTV est est partenaire depuis toujours et sera toujours partenaire c'est pas parce que euh, direct bi 2S apporte na ko rek que DTV est écarté non non DTV n'a jamais été écarté. kon moo tax ils n'ont jamais été écartés. kon lan moo tax ñu euh, ngeen defee ko registre bi. bon en fait c'est-à-dire euh, le fait boo xoolee ci suñuy flyers. DTV mi ngi ci woon. mais c'est à la dernière minute que lañ ko switché def ko biir 2STV. Mm-hmm. tele nag bu ñëw biir télé naan day couvrir événement. le fait que ñu annulé grand théâtre bi def ko biir 2S loolu rek moo tax DTV mu jëwul ñëw mais DTV a toujours été partenaire. toujours. est-ce que affaire bi am nay partenaires yi ñoo ngi ñëw pour nangu la financer nga gën a jàpp ci. pour jàpp ci bon en tout cas ñi ngi def suñuy démarche nous sommes nous sommes ouverts à toute proposition ñi ngi def suñuy démarche euh, ñi ngi fëgg ay buntu ñi ngi wax ak ñoo xamante ne xam nga c'est ça promet des choses am na ñoo xamante ne envoyé nañ leen dossier tontooguñu donc euh, voilà de toute façon euh, partenaire ou pas l'événement est toujours là mais li leer ba leer nous remercions le ministère de la culture di di di di di di gërëm FDCU bi nga xamante ne amul benn benn benn yoon boo xamante ne wax dëgg yàlla mus nañ ñu bàyyi quelles que soient les situations mm-hmm. am nañ tamit ay partenaires yu mel ni waaw waaw euh, boo xam ne waaw waaw authentique brand waaw ñoom seen loxo mi ngi ci événement bi bu baax et à fond l'équipe de Point Blank Prod ñu ngi liggéey liggéey bu remarquable boo xamante ne li nit ñi war a xam mooy waaye di kese attanul événement bi mm-hmm. il ne s'agit pas de mois il s'agit de tout une équipe et il s'agit de tout une communauté de culture yaa ngi dégg voilà ñiy jàpp ci liggéey bi du man kese man tout ce que je fais c'est coordonné mais il ya de réalisation yoo xamante ne ay nit yu xarañ ñoo nekk ci ginnaaw man loolu mënuma ko mënuma ko donc euh, je tends la mais en tout cas xam nga à toutes les personnes qui s'intéressent à la culture urbaine bi nga xamante ne ñun moom moo ñu tax a jóg moo ñu ñor moo ñu saf et travaillons ensemble et élargissons ensemble xam nga au profit de chacun quoi mu nekk gagnant gagnant nit ñi am ci ñun li ñu am mooy suñu plateforme de visibilité bi nga xam ne moom lañuy jox partenaires yi c'est à travers cette plateforme là qu'on met en valeur ce qu'ils font qu'on met en valeur leur marchandise wala leur marque wala leur tampon lu mu mënti doon comprendre léegi nag dépendant na ñoom lan la leen jaral faut à de foofu la ñuy discuter rek c'est comme tous tey waaye di soo nee hip hop Galsen ci àdduna dañ lay bàyyi xel. Hmm. ba dal moo tax euh, ndax ndax am nga yaakaar ne télévision yi nekk biir Sénégal jox nañ cër euh, milieu hip hop yi genre. Euh, non man je ne pense pas parce que on peut pas avoir euh, de télévision au Sénégal ba pare culture urbaine bi urbaine bi ak lu muy représenter Sénégal yëpp que ce soit benn wala ñaari télé ñoo fa am émission hip hop boo xamante ne c'est constant. yaa ngi dégg tey la plupart des jeunes qui travaillent dans toutes les télévisions c'est des jeunes de la culture urbaine c'est des hip-hopeurs la quatre-vingt-dix pour cent de tous les techniciens yi liggéey ci télé Sénégal yëpp tey c'est des gars yi nga xamante ne hip-hop bi moo leen benn le hip-hop est la seule chose que toute la jeunesse du monde a en commun tout espace urbain sur terre et gouverné par le hip hop foo munti dem ci àddina même fii fii da ngay dem dugg ba ci biir mairie bi des gens qui entourent le maire son gouvernés par le hip hop le maire de la ville de New York laa la wax de moom mii ci boppam ils sont tous gouvernés par le hip parce que doole bi mu am ci dëkk bi la yaa ngi dégg Sénégal. Je ne pense pas que les télévisions respectent la culture urbaine. Je pense pas que les télévisions respectent le hip-hop. Preuve, tout le temps, si on aborde le sujet, bobu lan la ñuy boy rappeurs yi boy rappeurs yi mais boy rappeurs yi yaa am na ci ay pas am na ci ay mag yoo xamante ne aujourd'hui c'est des pères de famille am na ñoo xamante ne c'est des directeurs de compagnie am na ñoo xamante ne c'est des patrons de label aujourd'hui qui offrent des centaines loo xamante ni am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne duñ ko def les jeune cadres dans les banques wala dans les sociétés wala dans les compagnies est-ce les appelle xam nga les boys jeunes cadres yi am na ay patrons de télévision aujourd'hui yoo xamante ne aujourd'hui c'est des jeunes est-ce que dinañ xam nga booy directeur bi est-ce dinañ ko wax booy rappeurs yi rek ngay dégg fu ñu tudd rappeurs yi booy yi lañ leen wax mais tey booy yi ci mbalax bi sax fale fa tey fa la ñu gën a ëppee y quand le pays en a vraiment besoin ban artiste mbalax nga mos a gis mu taxaw ci kanam hip yi rek ngay gis tout espace urbain sur terre et gouverné par le hip loolu bu ko kenn fàtte nañu télé yu jox cër quoi. est-ce que yéen ngi def démarche pour télévision yi wala directeur. on n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin de faire de démarche bu njëkkoon amoon na. waaw mais en fait c'est-à-dire tout de honnête pour être honnête aussi euh, tout dépend aussi de l'approche tout dépend aussi de l'approche am na ñoo xamante ne tey ni ñuy approché télé yi wala ni ñuy approcher même rajo yi sax mooy tax peut-être que nit ñi duñ leen jox cër bu mat man su ma ñëwee ndey dama déposer télé. am na nu may approché tele noo xamante ne voilà am na ay télé yoo xamante ne ñi ngi Sénégal nit ñi dañ may wane ma noonu waaye di lan moo tax doo dem ci télé bi lan moo tax doo dem ci télé bi man j'ai donné di vingt ans de ma vie vingt et un ans de vie jox naa ko hip hop bi tey toll ma foo xamante ne tey man damay ñëw di fëgg buntu télé pour ñu jël ma non mais réalisation son visibles ku ma bëgg xay xam nañ maay kan xam nañu man maay kan. Je suis l'un des seuls animateurs qui ait gravé les échelons comme il le faut pour être là où je suis aujourd'hui. J'ai été fanatique, mélomane. J'ai été MC di présenter ay soirée hip avec DJ Mactar paix à son moo ma njëkk a jox micro yaa ngi dégg ma jógee foofu liggéey ak Pendra avec Optimus Production ba 2005 ma ñëw l'occasion de présenter le concert de Akon il y avait Coco Jean était là sur scène avec moi Exidex était là avec moi sur scène je suis l'un des le seul si si si si, si ce n'était le seul animateur bi nga xamante ne je me suis fait un nom bien avant rajo bien avant télé est-ce comprendre nga le seul animateur bi nga xamante ne je me suis fait un nom bien avant rajo bien avant télé def l'une des plus grandes scènes bien avant rajo bien avant télé ba 2007 laa njëkk am émission rajo grâce à Edouard Ndiol Koumba paya naam moom tamit yaa ngi dégg ñu pare ci loolu un an après Lothar Gomis l'ex-manager du positif Black Soul nous a appelé pour nous dire que Ben Bass aussi paie à son âme moom tamit euh, que RDV Musique RDV Musique veut lancer un programme de télévision et il a besoin d'animateurs ci la ñu woo pour ñu ñëw ñu ñëw gérer RDV Musique y avait man y avait Baye Souley Mimi Curtis y avait Sonia amoon na tamit euh, une autre personne là qui faisait une émission de zouk xaw ma je sais pas est-ce que yaa ngi dégg. je suis parti de là ci 2008 on a lancé Big City Battle à la piscine olympique qui a débuté la carrière de pas mal d'artistes ay El Phénomène noonu ñoom ñëpp fa la ñuy jaar balaa muy dem gagner hip hop feeling chez Fata ok ñu jóge foofu def nañu top euh, jaar jaar euh, jaar jaar jaar tamit Top FM. daan nañu XFM une radio de la banlieue foofu noonu yëpp jaar nañ fa ba atterrir tey fi nga xamante ne euh, avant ça on a aussi fait un shootout shootout qui était un tournoi de de de de de de de basket sëñ naa ni ngay defee appareil bi nii day tax du ma du ma mën a concentré wu li ma bëgg a wax quoi boo ma xoolee dinaa mën a wax li may wax mu leer. demal dama doon jëlaale photo. waaw <laughs> est-ce que comprendre na. donc euh, euh, ba ñuy kii ci loolu ñu organiser Shootout un tournoi de basket sponsorisé par la NBA Africa xaaral fii nii côté bi il faut ma reprendre ko parce que dama ko bëgg wax mu leer ko je sais pas après au montage nga xool noo koy def mooy ma ne la quand je disais que je suis le seul animateur au Sénégal qui s'est fait un nom avant la radio avant la télé et avec des scènes très importantes yaa ngi dégg D'abord, dans les soirées de DJ Maktar, les soirées les plus chaudes. Après Optimus Production, au début, quand il faisait Hip Hop Awards, Big Up à Pendra, qui est parrain de notre édition au Galsen Hip Hop Awards cette année avec Amadou Falba. yaa ngi dégg 2005 ñëw on a eu le privilège man Coco Jean et Exidex e de présenter le premier concert de Akon après son succès international et depuis lors c'est parti pour les grandes scènes te li ma lay wax nii yëpp c'est cinq six ans bien avant la radio bien avant la télé rajo ba ma xëy njëkk a def c'était en 2007 laa njëkk am émission boo xam ne maa ko moomal sama bopp The join ci la judd août 2007 te ci période boobu c'est une émission qui a débuté la carrière officiellement de beaucoup d'artistes yi nga xamante ne ba tey yaa ngi leen di dégg yaa ngi dégg loolu noonu yëpp ça nous a permis aussi de faufiler sur d'autres radios ah ay XFM dans la banlieue à Amon am Top FM par-ci et tout tu voilà ba ci plus tard après ça on a eu euh, notre première émission sur RDV euh, qui était RDV Musique au début grâce à Lothar Gomis le premier manager de Positive Black Soul bi nga xamante ne moo ñu woowoon de la part de benn Bass pour venir euh, prendre des émissions sur la RDV Musique qui est devenue aujourd'hui DTV yaa ngi dégg boobu Big City Battle bi ñu doon organiser tamit bi euh, piscine olympique mu ngi doon daw on a débuté aussi la carrière des artistes yu mel ni ay El Phénomène foofu la njëkkee jël final balaa muy dem jëli finaliste euh, final ci euh, nu mu tuddati ci hip hop feeling avec Fata sur 2S ok ñu def shootout après un tournoi de basket sponsorisé par la NBA Africa ci la ñu jóge foofu ñëw tey def Galsen Hip Hop Awards en 2015 Galsen Hip Hop Awards ba mu commencé ba léegi ñaata booy ñoo fa fël buñ ko waxee ak buñ ko waxul je vais pas citer de nom mu nekk dans les nominations mu nekk dans les cypher wala ba ci prestation yi combien d' ñooy ñi nga xamante ne seen première apparition nationale ci seen Hip Hop Awards bi la comprendre donc j'ai pas je suis venu de nulle part man dama dama topp yoon bi ba egg fii ma egg nii yaa ngi dégg euh, dañoo toll tey foo xamante ne Seydina dafa am ñoo xam ne dañoo war a sant hip hop bi parce que hip hop bi dafa leen may baat mais dafa am ñoo xamante ne hip hop bi daf leen war a gërëm man ci ñooñu laa bokk. 22 ans de ma vie jox naa ko hip hop bi à très bas âge donc aujourd'hui étant un animateur wala un présentateur. j'ai cheminé là où il le ba egg fii ma egg nii tey je le dis pour que ñi nga xamante ne ils disent du négatif à mon parce que certainement dañoo xamul fi ma jaar xamuñu sama parcours dama ko bëggoon leeral rek pour ñu xam ne tëb tëb ma rek ñëw je suis pas de cette dernière génération dama fekkee te ku fekkee da ngay xam lu bëri voilà. mu mel ne kon waay di euh, ci li mu nekk yàgg na ci loolu ñëpp a koy confirmer wala ku yàgg a xam waay di depuis temps booy ñun bi ñuy seetaan RTV musique ci lañ la xamee comme xam nañ kenn mooy waay di hmm. tey ndax waay di dafa doon victime ci euh, ñu bañ koo ñu bañ koo teg place am wala ñu bañ ko jox li mu man <laughs> wala lan la dañ ko xeeb wala dañ ko dañ koy dañ koñee di la di la di la kale genre mais noonu nan la demee. tu sais. Euh, te waay di mën a doxal lu bari te duñ ko ko jox. quand tu dafa am lu bëri loo xam ne duñ la ko dénk dafa am lu bëri loo xam ne duñ la ko nangul. ñi nga xamante ne parce que j'aime pas parler sama position Seydina man il faut que ce soit clair kenn mënu ma ko nangu. kenn mënu ma ko nangu. kenn mënula ko nangu kenn mënu ma nangu sama position. parce que amul benn rappeur Sénégal tey jamono ji koo xam ne mën nga ma jàngal dara ci hip loo xam ne man xaw ma ko. yaa ngi dégg amul benn animateur tey boo xamante ne tey mën na ma jàngal dara ci hip loo xamante ne xaw ma ko. parce que man daf ma jaral. ma gestu sama gestu. dagg bi ñëw ba bërëb bu mel nii. dugg fi mu war a dugg gisee ak ñi ma giseel ñibbi si Sénégal di ko partagé mais on t'étiquette de ay laisse tomber quoi ay. c'est c'est pas non non non. en fait c'est vas parce que yaa ngi ci yoon bi quoi c'est-à-dire euh, tu peux pas être étiqueté de quelque chose. tu sais quand les nit ñi bu ñu la bu ñu la ko les gens ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas mm-hmm. et ils détestent ce qu'ils ne peuvent pas conquérir mm-hmm. loolu mooy dëgg ji mm-hmm. lu ñu comprendre il faut ñu tilimal ko lu ñu comprendre wul il faut ñu tilimal ko man je suis très confortable dans mon siège je suis très confortable dans ma peau je suis l'animateur le plus heureux quand je suis dans mon émission man mun naa am problème mu àddina yëpp mais bu ma xasee ba toog sama émission je suis xoolal fàtte naa lépp j'oublie d'accord ci loolu ba tey. waaw ci concert Akon bi ngay nettali léegi. waaw dañ ma wax que ne dañ la fa xaw a minimiser genre mel noonu. non bëgg la suufeel. non non non dafa am ñoo xamante ne. Mhm. Euh, il ne voulait pas me voir sur scène. loolu rek la mais j'ai prouvé que j'étais capable de le faire. Mhm. ma def ko. Mhm. comment je me suis retrouvé sur scène. laaj leen loolu. laaj leen bu fekkee dañ ma doon tuutil wala di ma jëm a kii comment je me suis retrouvé sur scène doo mhm. man mosuma xeex wala mosuma buuxante pour présenter concert mhm. c'est mon talent qui parle artistes yi ma mos a yéegal sur scène yëpp xam nañ maay kan façon bu ne yéegal naa leen sur sur scène locale et international mhm. donc euh, loolu c'est pas une discussion loolu du débat loolu du débat man kenn du ma tuutil ci suma liggéey ndax da ngeen amoon problème ñu la doon jéemal def loolu wala da ngeen a mas am problème wala c'est clair c'est un milieu boo xamante ne milieu bu siis la mhm. gan gi bu demee man du baax ci man il faut que ma xool nu ma koy galgalee loolu rek la ah et ça toujours existé mi ngi ci domaine yëpp nag mhm. mi ngi ci domaine yëpp mi ngi ci domaine yëpp mhm. kii bu demee du baax ci man il faut que ma xool nu ma koy voilà loolu rek la mais c'est-à-dire euh, <laughs> ça fait c'était en 2005 on est quelle année 2022 anama yaa ngi New York voilà di photo woon daanaan yi di toog ak daanaan yi dugg ci studio yi sa réponse a ngi noonu <laughs> encore waay di kon mën nañu wax ne euh, mais daanaan yi du fii kese nag ah ils sont au Sénégal ils sont en Côte d'Ivoire ils sont euh, au Mali ils sont partout donc fi ñu mënti nekk man bu ma mënee déplacé wu damay déplacé wu dem seet leen parce que dafa am loo xamante ne dama ko gëm ci loolu laa ne mhm. voilà mhm. Mhm. kon waaye di ma laaj la euh, ban problème nga am ak groupe Futurs Médias amu leen benn problème groupe boobu noonu Futur Média. waaw say programme partenaire. j'ai jamais eu de problème non non non j'ai jamais eu de problème avec eux. waaw c'est vrai que way que deux c'est vrai que 2010 fii xam nga y a une situation avec euh, avec euh, avec avec avec Bouba Ndour mais bon kooku je pense que c'est pas c'est pas la permettre dugg c'est donc. Euh, voilà on a <laughs> on s'est donné la main et puis voilà on passe à autre chose quoi. mën nañ euh, moo waraloon problème bi moo ko tooñoo. wala yaa ko tooñ xam bu ñu xasee discuter am na ñoo xamante ne boo xasee ba ba ba ba jox nit ki loxo ne ok xam nga problème jeex na jàmm ñëw na. Mhm. ba ma invité ko en 2016 Galsen Hip Hop Awards mu ñëw joxe trophée Matador. Mhm. weesu nañu leneen li xew yëpp. mais ay malentendu la woon ay coow yu sew sewaan. malentendu la malentendu la woon rek. ci naka est-ce bi nga benn malentendu la boo xam ne ça nous a l'idée sama xam nga viré vers une frustration. Mhm. c'est vrai xam nga boo nekkee jeune xam nga am benn projet boo xam ne mu leen ne lii opportunité bu rëy la musoo ko am et voilà mu am ay ay ay ay ay euh, suivi yoo xamante ne yow tey loolu suivi yooyu boo ko tegoon loxo dina doon maanaam tey. Mhm. lu lu important ci yow lu important ci sa accomplissement mais ñu yàqal la ko tout simplement par euh, en ne pas être en contact voilà day ñaaw quoi day ñaaw day frustré comprendre dafa mel ni benn bébé rek boo xamante ne xam nga pendant des mois wala pendant des années xam nga muy euh, des des des mois des semaines muy jéem a jàng dox di jàng dox di jàng dox mu jékki-jékki xam nga ñëw premier jour ba mu commencé dox mu dox ba foog ne instant yi nekk na ci rek xam nga nga ñëw bu ma ko mu daanu mais dalay mere waaw loolu la. <laughs> nga jékki-jékki ñu gis la États-Unis gis la benn pip benn photo Waydi ak Mo Gates Mo Gates daf la soxla pour ngeen liggéey. Euh, Gates waaw sa charate charate ma mooy na lamp yi tàkk mais <laughs> non non non moo euh, sa sama sama sama la ku baax la et depuis qu'on nous a présenté wax dëgg yàlla. Euh, dafa rafet rek mu respecté ki ma doon bu baax et ñu jottali ko tamit ay kàddu yu rafet ci man ci sama liggéey ci sama rigueur et voilà ci la fas yéene xam nga euh, voilà je lui ai dit que am na lu ma ko doon doyee am na loo xamante ne xam nga soxla na ko ci man donc euh, ñu toog waxtaan déggoo ci c'est clair incha allah on a de projets en cours yoo xam ne nii nii nii ñu ngi koy waxtaanee mais sa viendra instant yi nii xam nga mi ngi préparé anniversaire am anniversaire bu rëy boo xamante ne moom xam nga ce sera une date assez importante ci septembre bi boobu programme boobu déjà ñu ngi ciy job y a un autre aussi programme boo xamante ne ñu ngi nekk ñu ngi ci euh, en décembre et na artiste bu mag tam bu mu bëgg indi Sénégal boo xamante ne ñu ngi koy ñu ngi ciy dox daal instant yii on a trois projets en cours yoo xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy démarché ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy échanger chaque jour ci kanam nii war naa ko gis. donc euh, voilà ku ba ku baax la ku am yéene la xam nga pour que Sénégal avancé surtout xam nga jàppale jeunesse bi. Mhm. cette jeunesse culturelle donc du coup loolu moo tax xam nga impliqué nañu sax xam nga tamit ci Galsen Hip Hop Awards bi. Mhm. et grâce à lui xam nga am na ci ñaari nit yoo xamante ne rencontré naa leen fii États-Unis mhm. ñoo xam ne dama yàggoon naa leen soxla mais c'est grâce à lui que je les ai rencontrés donc maa ngi ko ciy remercier bu baax. kon seen seen collaboration bi day dina jur. beneen mën ci xaar yeneen non c'est constructive te am na fu ñu jëm. Mhm. waaw am na fu ñu jëm. yow yow mi rencontré gét muy sa xarit sénégalais yu bari xamuñu ko mën naa ne ay xarit ngeen parce que yéen a ngi eh, kii yëndoo bu euh, baax gis naa leen dama leen di suivre bu baax <laughs> tey lan nga ma mën a wax ci Moguette ci ay positif ci ci loo xam ne damay gis waaye nit ñi di ko apprécier ci ñoom ci moom. bon xam nga. ba ma ko xamee yàggul mënuma sori trop ci moom mais li mu ma wan man ci loolu laa mën a basé wu li nit ñi di wax munuma basé wu ci loolu et je m'en fous I don't euh, comme ni ko gars yi di waxee fii he is a very stand up dude voilà ku ku ku ku stand up la ku direct la dalay wax li mu xalaat dalay wax li nga xam ne loolu la bëgg boo ko munee ngeen nekk ci bisimilah boo ko munul tamit xam nga dem mu dem te man yàlla dafa def na nga xamante ne man mii tamit je suis comme ça yaakaar naa ne loolu moo tax xam nga ñu gën a mun a ñu ñu ñu mun a def ko tu vois. léegi nag euh, voilà il a eu euh, des yoo xamante ne xam nga gars yu bëri taxal nañ ko fii wax ay affaire yu ñaaw ci moom man loolu yëpp fekkeewu ma ko du ci dugg parce que xaw ma nu mu demee mais li lim ma wan. en tout cas gis naa ne nit ku jub la nit ku respectueux la nit ku am yéene la te fas yéene liggéey ak ñi nga xamante ne bëgg nañu liggéey donc loolu moo ñu boole te bu soobee yàlla dinañ ci jàpp ba mu sës. kon mën na mën nañ ko xaar ren mu doon partenaire ci Galsen Hip Hop Award. bien sûr bien sûr mi ngi ci biir à fond. Mhm. mi ngi ci biir à fond. Mhm. mi ngi ci biir à fond dañ ko tegal programme bi ne ko lii ak nii ak nii lay demee on a besoin de toi jeunesse di nga gis nañ ni parmi tous les jeunes yi nga xamante ne ñi ngi ci diaspora bi bokk na ci ñi gën a fës jeunesse espoir de demain la ñuy kii donc on a visé le côté positif ne ko lii soxla nañ ko ci yow donc euh, mu validé et puis y a pas de souci donc on travaille là-dessus ensemble et puis tamit dinañ ko jàppale ci programme am donc voilà échange boobu la. waaw jamono ji hip euh, hop Galsen gis nga ni mu mel temps yi dafa mel ne. rappeur hip hop gëj na euh, quoi rappeur hip hop man maanaam benn rappeur gëj na non mu mel ne tey temps yi euh, hip hop galsen bi mën naa ne dafa xaw a wàcc parce que gisatuñ temps yëpp képp ku def rap hardcore bi vidéo dem tendance lan moo xew sénégalais yi ñoo amul culture générale hip hop bi wala mbir yi moo dem wala gars yi dañuy dugg léegi rappeurs yi groupe rap yi dañuy commencé tas koo ci jël ITV mu ne non dama nekk sama carrière solo waaw damay dóor genre amour mbëggeel genre yu mel noonu est-ce que mën nga ñëwaat ci problème situation hip hop Galsen non non gis nga Seydina côté boobu je te dirais que euh, déjà vous faites une mauvaise approche vers ces artistes là. Mhm. parce que réponse yu ñu lay jox noonu. Mhm. pour être honnête avec toi sans manquer de respect je pense même pas que rapport yi am na réponse yooyu réponse yooyu la ñuy joxe. ah man am na ku ma ko jox ma naa limal seen tour c'est vrai que c'est vrai que euh, il y a la plupart des groupes sont en voie de disparition hip-hop depuis sa création tey aujourd'hui très rares sont des animateurs wala même ay rappeurs mhm. ay rappeurs yu la mun a wax ni en deux mille vingt le hip-hop aura 50 ans le 11 août 1973, reconnu comme la date officielle de naissance du hip-hop. Au Sénégal Dans le monde entier, dans surtout monde ici entier. aux États-Unis. Mhm. Donc, en le hip-hop aura ans. Depuis sa création, chaque année, chaque 4-5 ans, il y a une nouvelle vague qui arrive. Mhm. Nouveaux sons, nouvelles touches, nouvelles façons de faire. tey dem nañu ba egg foo xamante ne tey le respect dans le vrai sens du terme n'est plus la comme avant créativité dans le vrai sens du terme n'est plus là comme avant le message il est en train de disparaître pas complètement pas dans tous les pays wala ba pas forcément avec tous les artistes je parle en général yaa ngi dégg donc c'est normal que hip bi évoluer egg foo xamante ne tey dina doon loo xamante ne ñi woon daaw duñu ñu apprécier li nga xamante ne mooy ren ñii ren certainement naruñu apprécier lii xew ëllëg et c'est ça une évolution léegi évolution bi yëpp c'est bien ou c'est mauvais man du ma wax loolu c'est juste que c'est différent maintenant chacun est libre d'écouter li nga xamante ne yow mooy say mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy sa moo la saf quoi moo la neex. sa playlist mais faut pas qu'on dise euh, kii li muy def du hip hop wala kii li muy def du hip hop am na ñoo xamante ne ils sont conservateurs am na ñoo xamante ne c'est des puristes am na ñoo xamante ne euh, ils marchent vers la tendance. Je te donne un exemple. Au Sénégal, très rares sont des artistes qui ont accompagné toutes les générations et ils sont toujours là. pourtant. Mhm. am na ñoo xamante ne dañoo ñëw def un deux ans trois ans maximum ñu réer mhm. kenn déggatu leen. Mhm. am na ñoo xam ne def nañu cinq six ans ñu jékki réer kenn déggatu leen. am na ñoo xam ne dañoo tukki bëggatuñu ñibbi. yaa ngi dégg am na ñoo xam ne bàyyi nañu. mais seen xol mi ngi fa ba léegi. mais dafa am lu ñu ragal c'est-à-dire l'insécurité financière dafa dàq rappeurs yu bëri tey ñu daw. booy li ñuy def nii cette nouvelle génération la moi je ne condamne pas je comprends pourquoi ils le font mais li ñu leen di ñaan mooy nañu gestu xam li nga xamante ne dafa am loo xamante ne mooy cette culture là qui s'appelle le hip hop dafa am benn fondation boo xamante ne boo ko respecté wul munoo am direction artistique boo xoolee raison pour la y a beaucoup des artistes aujourd'hui nga xamante ne ku ci nekk dafa am lan moo tax nga koy def y a yi nga xamante ne ils se font ils euh, ils rappent aujourd'hui pour l'argent et les fi le buzz moo leen intéressé am na ñoo xamante ne ils pour éveiller la conscience des gens am na ñoo xam ne dañoo bëgg a def rab dañuy rap pour avoir juste l'opportunité de voyager am na ñoo xamante ne dañuy rab pour l'amour de la culture fileeg xamuloo ci yooyu ban moo tax nga koy def tu n'auras jamais de direction artistique loolu moo waral da ngay gis ñoo xamante ne aujourd'hui da leen di déglu nga xamante ne ñii c'est tout c'est c'est l'amour de la culture moo leen fi téye mais amatuñu lu leen neex ci rab bi am na ñoo xam ne dañ ñëw ne ok xam nga la man lii laay def lii moo neex snap bi ak tiktok bi falaa koy té mm-hmm. yaa ngi dégg am na ñoo xamante ne il continue malgré tout d'éveiller les consciences ku déglu baax na ku dégluwul baax na ça c'est des gars yi nga xamante ne ñoom ak ñi nga xam ne ils le font pour l'amour de la culture ñoo bokk ñoo bokk rang ñoo bokk classe yaa ngi dégg mais tey am na ay artistes yu mel ni ay tey ay Nix wala Xumaan wala Gaston wala Daara J Family tey c'est des artistes yi nga xamante aujourd'hui après plus de vingt ans de carrière ils sont toujours là te génération bu ñëw ñu ànd ak yow parce qu'ils ont su s'adapter il y des artistes yi nga xamante ne ils ont peur de s'adapter ragal nañu ànd ak tendance pour ñu étiqueter leen non léegi fekk nga lan moo tax lii nga doon def wala dëgg na man au début je te cache am na benn vague boo xamante ne man boo doon def loolu dama naan souvent xam nga la li ngay def xam nga mbalit la quoi mais étant animateur nga gën a gestuwaat wax ak ñi nga xamante ne ñoo la jiitu dem acquérir de la connaissance et de l'expérience di nga mun a comprendre lan moo tax ñoo ñu di def loolu di nga mun a xoolaat yow sa taxawaay en tant que conservateur de cette man je suis un conservateur génération bu ñëw tey sama émission mun naa wax ak yow génération bu ñëw tey sama émission xam naa nan laay defee interview ak yow xam naa ban genre question laa la mun a poser xam naa nan laa la mun a maintenir dans l' émission que tu sois heureux que tu sois content d' dans mon émission tey am na ay animateurs yoo xamante ne wala yenn émission yoo xam ne dañuy invité yenn artistes ba pare di leen tuutil di leen dammati am na ñoo xamante ne tey ay artistes yoo xamante ne honnêtement xamuñu dara mais dañuy ñëw toog ci animation yi ci yenn émission yi mais ñu leen di yëkkati comme si c'est les dieux du rap est-ce que comprendre nga y a du bon y a du moins bon y du mauvais mais y a aussi du très bon léegi nag ay seppi la ak ay tànn. loolu am na ay émission yoo xamante ne wala am na ay animateurs yoo xamante ne dañuy dox ci yaama neex. kii moom ma neex moom laay teg kee neexuma duma ko teg man doxuma ci yooyu ñi xam ne dañ may saaga sax dama leen di teg parce que quand tu fais ton émission tu le fais pas pour toi tu le fais pour ceux qui t'écoutent yaa ngi dégg am na ñoo xamante ne aujourd'hui il raconte du n'importe quoi de négatif sur Wadi mais terewuma leen jox loxo so it's so good culture yi boo xasee ba comprendre ko dafa am benn affaire boo xamante ne dafa important ci milieu bi bu fekkee yow xam nga culture bi respecté ko mooy le respect la reconnaissance ak realness mooy dëggu. ci realness boobu est-ce que old school yi. waaw ñoo ngi jox la ko new school yi. y en a qui le font y pourquoi ñoom ñoo mën a tontu loolu. man li ma lay wax nii maa ci teg bët. waaw ah, parce que dama dañu jël interview Ngaaka Blindé waaw mu ne woon na ci old school jëru may tudd turam waaw nekko dama bëgg ñu def futur yi mais daf ko daf ko dawloo dax ko carrément ne ko aw ma jot bon écoute xam nga man honnêtement je sais na ay at deful album wala peut-être wala album da nga koy préparé pendant dix ans wala lu ko ëpp non gis nga fi jamono bi toll euh, est-ce que ban artiste la mais na ce que je peux te dire mooy Euh, dafa am ay artistes yoo xamante ne ils sont super super super débordés yaa ngi dégg dafa am ay artistes yoo xamante ne ils sont super débordés bi nga xamante ne euh, de sorte que léeg-léeg même ñi leen wër sax pour ñu jot si ñoom problème la am na artistes yoo xamante ne bu ñu ragalee featuring duñ ko def am na artistes yoo xamante ne bu ñu sentirul featuring duñ ko def am na ñoo xam ne tout simplement il faut avoir du temps yaa ngi dégg am na ñoo xamante ne bañ la tontu c'est leur façon de dire non c'est pas méchant am na ñoo xam ne dañ la naan carrément tey imagine toi artiste boobu ñëw ne ko non non sa interview euh, featuring bi sentiruma ko du ma ko def parce que neexoo ma wala li ngay def neexuma xam nga boobu moo doon gën a metti donc cherche à comprendre le pourquoi d'abord balaa ngay wax man daal loolu laay wax ci loolu quoi il faut chercher à comprendre mais old school yi ñi nga xamante ne ñi y a beaucoup d'old yi nga xamante ne ils font des featuring avec les jeunes Nix il a jamais refusé de fair des featuring avec des jeunes Ndongo Di muy frère yi ñoom ñëpp ils n'ont jamais refusé de faire des des featuring avec des jeunes yaa ngi dégg Xuman euh, il a jamais refusé de featuring de faire des featuring avec des jeunes ñeneen ak ñeneen ak ñeneen est-ce que comprendre na donc approche dafa am solo approche dafa am solo man mii am na artistes yu bëri yoo xamante ne euh, que ce soit même avec la jeune génération ah souvent il m'arrive xam nga yenn approche yoo xamante ne xam nga du nekk euh, approche yoo xamante ne noonu la waree donc du coup je suis mal compris oh waaye di les soucis waaye non léeg-léeg c'est l'approche qui n'est pas bonne que ce soit man vers eux que ce soit eux vers moi quand l'approche n'est pas bien l'approche n'est pas bien donc du coup loolu dafa am lu bari lu muy jur mais je pense que lépp toog waxtaan la rek parce que bu ñu waxtaanee rek dinañ gisee dinañ juboo et puis voilà ñu régler li ñuy régler bu mënee nekk alhamdulilah bu mënul nekk rek ñu xam ne mënul nekk faut tamit ñu rëy quoi voilà faut pas xam ne dañoo rëy rëy daf leen sonal rëy nagaa yi dal milieu bii nii fii kenn juddu fi nekk rappeur kenn juddu fi nekk animateur yaa ngi dégg àdduna lii nii yëpp fii lañ koy bàyyi dañoo toll loo xamante ne yàlla moo ñu nattoo hip bi ñun ñu bëgg ko yaa ngi dégg mais sànn ne pas ku nekkul ci milieu bi wala xam nga ku jafanduwul ci lii wala ku jaarul fii wala ku defantewul ak kii rek sa àdduna day tukki wala doo nekk noo fii koo fi bàyyi mun na demal boppam mais tamit dafa am loo xamante ne mooy base bi l'essentiel mooy respect ak considération boo ko amul ci nit rek yow am na lu bëri loo xam ne yaa ngi koy faussé parce que culture bi loolu la laaj nangulal nit ki lu mu moom mun na la bañ a neex mais nangul ko li mu moom waaw d'accord naka nga gisee ci révélation yi nga xam ne booy ñoo fi nekk comme as the best ay one really cool ay ñoom euh, euh, how to call it bari nañ instant yi affaire yi moo xaw a tëju un peu te maa yem ci ñi boo ma comme boo ma limalee de man ku ci nekk man mun naa la wax la mun naa la peut-être deux waaw naka nga gisee Ash the Best ak façon bi muy indi temps yi. Ash the Best est un artiste polyvalent. la maa ngi koy bu baax a baax. waaw maa ngi koy bigga man bu baax suñu suñu suñu suñu suñu rookie of the bi. yeah 2020. yeah ah. Euh, Ash c'est c'est bi nga xamante ne aujourd'hui il a adopté une polyvalence bi nga xamante ne tey dafa comprendre. li nga xamante ne mooy euh, mooy mooy mooy direction artistique am comprendre il a compris sa direction artistique mais terewu ko teggi tànk ci hip hop bi mi ngi rab ba léegi ah te ndeysaan je le dis encore te du ma tàyyi di ko wax parce que dafa am 2017 ñëwoon na ci Saayfa yi Galsen Hip Hop Awards mu tegoon loo xamante ne honnêtement j'étais pas satisfait ma ne ko bro li nga teg wax dëgg yàlla kiiwul quoi xam nga il faut nga nga nga nga nga jàngiwaat. parce que c'était la seule chance qu'il avait euh, il l'a pas mal pris honnêtement wala même bu ko jëlee en mal sax man waxuma ko en tout cas man en ce qui me concerne il m'a toujours montré du respect mais ba mu ñëwee ci Galsen Hip Hop au début à son moment il est venu il a fait ce qu'il avait à et il a eu ce qu'il méritait je suis très fier de voir un artiste euh, pour qui mon conseil a été construit a été productif voilà comprendre donc euh, c'est un artiste que je respecte et je lui souhaite beaucoup beaucoup beaucoup de chance beaucoup de continuation di ko wax tamit na ne ko lii mu nekk nii xam nga na jàpp foofu bu mu bàyyi di bëgg tamit Malick son manager ki nga xamante ne sama sama sama bro et voilà na na na continuer dans son chemin il fait du bon. benn groupe bu commencé def benn single mooy waa Akatsuki. waa groupe boobu tas ki wala benn bi élément bi tasul sax parce que ñoo ngi instant yi Kédougou di tourner benn. waaw ay ay concert yooyu maa ngi leen di. big up gars bu baax a baax. léegi euh, ñu jékki-jékki Mr Case génn ci ay groupe buy soog a démarrer loolu lan la mën a def ci groupe wala lan la mën a def ci hip hop wala seen carrière ci côté ki séparé wu wala ki nga xam ne moo des ci biir team bi. bon côté boobu je pense que j'ai deux réponses pour ça mais pour un groupe bi nga xamante ne xam nga c'est parti de. de d'un single bi nga xamante ne dañ nekkoon di ko enregistré wala wu freestyle mooy Wéredi qui a fait le succès phénoménal et international de ce de, de ce titre mm et juste avant la sortie officielle du produit ba pare xam nga kees génn ci je pense que dans pas mal d'émissions il a expliqué ses raisons je vais pas rentrer dans les détails mais euh, perso man j'aurais souhaité que, ouais, que le groupe soit resté parce que ils auraient eu peut-être beaucoup de chance mais destin moom buy ñëw day ñëw kenn mënu ci dara voilà ils font du bon Kesh aussi est super il est extraordinaire li ñuy def rek mooy ñoom ñëpp ñu souhaiter leen bonne parce que xam nga a de la place pour tout le monde voilà. lan nga gis ci carrière Cash Mr Cash. Mr Cash je pense qu'il a une carrière très promettante parce que il est entre de bonnes mains. c'est Dido c'est Nix te ñooñu quand tu dis leur nom lenn mooy njëkk ñëw sa bopp mooy l'expérience et le professionalisme mhm. et je pense que loolu c'est déjà une garantie bi nga xamante ne dina ko mën a jàppale pour mu sori. Mhm. Euh, je peux en dire autant pour Akatsuki. parce que Kalz euh, derrière Philippe en tant que manager et Fla en tant que coordinateur principal du label. man je pense que c'est des boys yi nga xamante ne euh, des frères yi nga xamante ne xam nga ils ont su euh, limite seen bopp tey ci li nga xamante ne loolu la ñu gën a mën même su fekkee ci rab bi la ñu démarré et ils ont su très bien encadrer les booy ba pare euh, hip hop bi tamit les a permis xam nga de s'ouvrir à d'autres opportunités donc boy yi xam nga s'il arrive aujourd'hui dem ba Kédougou di tourner mais loolu c'est pas rien loolu il faut de la persévérance donc euh, ils sont promettants mais li ñu mooy comme li ma la wax rek xam nga on souhaite bonne chance à tout le monde xam nga na Kees doxle na Akatsuki doxle après en fin de compte c'est le hip hop qui gagne voilà ñu koy jeexalee mooy nan nga gisee autotune jamono ji monde monde bi ñu toll ci jamono ji naka ni ni ko artistes yi joobee li nga rafetlu la wala lu ngay bañ a rafetlu la bon man en tant que puriste man li ma doon gënal mooy xam nga il faut maintenir xam nga une voix originale mais mooy comme ni ma la ko waxee musique ak euh, musique day évoluer musique day évoluer léegi nag dafa am ñoo xamante ne jig na leen am ñoo xam ne jigu leen dafa am ñoo xam ne ñoom ñoom moom autotune am ñoo xam ne moomuñu ko yanaa en a qui l'utilisent mais qui l'utilisent très mal du fait que yow boo déggatee keneen ku koy def sax du la neex mais am na ñoo xam ne ils le font très bien et ils savent comment l'utiliser donc euh, loolu daal laa mën a wax ci autotune y en a qui font bien y en a même bien y a qui le font très mal boo mënul da ngay bàyyi wala nga jox ñi mën ñu def. d'accord dama ne woon fi laa koy jeexale mais benn question bu ma koy jeexal. gis nga yow yaa ngi Amérique gis nga bu baax euh, concert yi ni muy demee. parce que July Ford fi la la fekk. waaw euh, tey naka ngay gisee en tant que présentateur bu mag yëg ci euh, seen yëpp Sénégal ñu jëli benn artiste bu tal ne Dadju wala Franglish wala euh, Iba Waan wala yeneen artistes yi nekk ci Afrique sax indi leen nit ñi fay entrée cent mille francs nga leen defal playback en tant que animateur est-ce que di nga rafetlu loolu. un bon artiste aujourd'hui en deux mille vingt deux warul def playback un bon artiste. Mmh. en deux mille vingt deux. Mhm. qui a une carrière de plus de dix ans. warul def playback même un artiste bu am plus de cinq ans de carrière sax waratul def playback parce que le le futur de la musique se tend vers la bande. te Ama Diop de Waliyaan yàgg na ko wax maa ngi koy bu baax. xeex na ci nag ndeysaan ba sonn. mais malheureusement la plupart de tous les artistes au Sénégal ont compris trop tardivement. Grand Awadi tamit yàgg na leen ko wax. yaa ngi dégg daara ji quand ils l'ont compris mais loolu moo leen waral chaque année il faut il participe dans presque tous les grands festivals au monde entier. fu ñu dem dañuy dóor mais boo joué wul live kenn du la bouquet ci festival yi. waaye lan moo tax le rap galsen n'est pas international man honnêtement après mûre réflexion et mûre participation dans différentes discussions aujourd'hui pour man sa reste un faux débat mais pour participer dans les grands concerts aujourd'hui mm festival yu mag yi mm-hmm. su waaye si tu joues pas en live mm-hmm. doo yëg kenn du la sax xalaat quel que soit sa musique nu mu neexee wala quel que soit ñaata nombre de kii nga jaay. Mhm. xanaa nga tëggal sa bopp concert mais les grands festivals. Mhm. kenn du la bouquet. Mhm. kenn du la bouquet. léegi loolu yow loo ko jàppee ci promoteur yi indi artistes yi la wala ci artistes yi seen bopp bu dee jeune internet. ñi nga a sa part de responsabilité. mais à la base l' artiste ci boppam moo mun a xam ak management ak son son son son équipe de management. Mhm. ñu xool ñoom nan lañ koy tegee ci direction artistique bu baax xamal ko li nga xamante ne moo gën ci moom xamal ko li nga xamante ne fii nga bugg a dem lii moo la koy yóbbu. Mhm. il faut aussi être entouré d'un bon manager expérimenté manager du nekk ay copain kese wala nekk koo xamante ne mën na négocier contrat nga woo ko rek ne ko kaay nekk sama manager manager dafa war a assister yow say enregistrement dafa war a xam yow sa direction artistique dafa war a xam lan moo baax sa image dafa war a xam lan mooy li nga xamante ne moom nga mun a euh, na noonu la ñuy négocier sa contrat dafa war a xam lan mooy li nga xamante ne yow boo demee ci bërëb sàngam wala nga dem ci dëkk sàngam dafa war a xam yow lan mooy li moo gën ci yow mu koy négocier ak yow mais ci kaw avant tout muy waxtaan ak yow bu baax parce que sa manager bu la xamee am na décision yoo xam ne dina ko jël te du la tàggu parce que xam na la. Mm-hmm. mais tey di woo ay artistes yoo xamante ne ouais on a besoin de toi pour ceci wala pour cela mais non je vais euh, ay ay manager ne artiste bi temps waa ok xam nga je te reviens mais il est obligé d'aller discuter avec l'artiste après dellu si souvent y a des yoo xam ne dañuy jël ay décisions yoo xamante ne du arranger artiste bi te artiste bi du ko yëg mhm. bien après la koy yëg après day am lu ko metti parce que mhm. ay ay ay occasion yu koy rëcc la te mënatu ko dab mhm. am na ay artistes yoo xamante ne seen diggante ki yenn partenaire wala yenn promoteurs yi yàqu na à cause de leur manager donc gars yi un conseil faites très attention à qui vous faites de euh, vous choisissez comme manager. parce que un manager mooy koo xamante ne xam na sa direction artistique respecté na la gëm na li ngay def koo xamante ne mun na défendre sa musique sans pour autant yow nga nekk fa. défendre sa musique laa wax de waxuma défendre sa négocier sa contrat wala kii mais défendre sa musique ak sa message ak ce que tu représentes bon manager doit pouvoir faire tout ça merci beaucoup fu ñu koy tëjee rek euh, ñu bàyyi la kàddu gi. waaw waaw waaw en tout kontaan naa trop. xam nga ci interview bi Galsen Hip Hop Awards kontaan naa trop ci interview bi euh, je pense que sama m'a permis de dire certaines choses yi nga xamante ne mosuma ko wax fenn. bu fekkee am na loo xamante ne wax nañ ko fii lu jagadi wala si des gens sont offensés par rapport à ce que j'ai dit maa ngi ciy jégalu bu baax c'est pas mon intention souvent di nga am yenn vérité yoo xamante ne wala yenn. honnêteté euh, yoo xamante ne buy génn léeg dina déranger mais c'est pas notre intention man euh, doomu Bambara la j'ai pas été élevé comme ça mais bon euh, il faut il faut quand même dire les choses souvent quand il le faut ou comme il le faut parce que je pense que c'est la seule façon dont les gens pourront comprendre li nga xamante ne moo nekk sa xel wala li nga xam ne moo nekk sa xol wala mooy sa yéene voilà donc mooy loolu di big up Sénégal bu baax et di big up les artistes qui font bon di big les artistes qui di big up tous les artistes xam nga qui sont focus sur l' avenir de leur carrière e di wax gars yi nga xamante ne nag tamit euh, dañuy nekk di tilimal game bi wala qui font dire à des gens ñiy wax lu ñaaw ci hip bi ñoo ñi wax leen nan nañu régler quoi nañu régler voilà parce que culture bi moom euh, kenn moomu ko mais ñëpp ko moom. jërë ngeen jëf mbokk yi yen ñu doon seetaan Senego TV senego point com gis ngeen suñu entretien exclusif bi nga xam ne moom la ñu waay ji jox fii ci New York. ni ma ko waxee woon morning side park di macha allah parc bu feex def nañ nu émission macha allah euh, ci sécurité ci jàmm ak salaam di leen jox rendez ak beneen daanaan ci beneen rendez-vous fii ci New yokk ak Seydina Aliou Ndiaye jaa